ay ca doore ko sa goxub kumbam làmb tëngee ci yéen kay groupe des nee na loxo dara na fa gémmañ de loxo dara tina fa gémmañ njombe laa ngi xewee kon foofee sa tëngee ab taax si boppam moo fa màbb benn bâtiment sa cité si presse laa lay wax nii bilang ba diis na lool dama ne bilang ba diis na lool laa la wax juróom ci ay doomu aadama la ñu fa tàggee ñoo fa faatu juróom benn ci ay rescapé am na si koo xam ne te guddi ga lay soog génne laa la wax nii le quotidien yéen kay ne bilang baa ngoog de juróom ñoo ca faatu juróom ñetti jële ci ay gaañu-gaañu xibin yéen kay daal di dikkaat nee na fukkax ca ñooñee jàpp leen ne kon juróomi tàgge nañu leen ay ouvrier la ñu woon nekkoon sa chantier ba l'observateur di ko dëggal yéen kay groupe Futur Média nee na juróom la ñu si ay ouvrier yoo xam ne nii muccuñu sa ñoo faatu laa la wax nii ba tax ba màbbee seen kaw le soleil yéen kay ne bilang baa ngoog aha kay loolu mooy dëgg sax juróom la ñu ñoo faatu l'observateur daal di dikkaat nee na man mi observé njombeeli maa leen di xamal ne kon ñu sa jële ay gaañu-gaañu am na ci juróom-ñaar yoo xam ne ay blessé léger le regard yéen kay ne boo observé man maa xool la ma gis moo di tax boobee màbb dañu ko doon defaraat de ak jag-jagalaat laa la wax moom la ñu doon def jag-jag cagalaat googee maanaam jàngoro la mujjee doon faat juróom laa la wax ci ouvrier ya fa nekkoon seet ga nag metti woon na lool ndax taax ba na mu màbbee moo jéggi dayo waaye gaañu lañ mat nañu ba génn si juróom ci ay néew ministre bi ñu délégué ci ministre de l'intérieur moom Biram Fay dikk na fa sa délégation boo xoolee ba ca biir gouverneur bu Dakar ma nga ca woon Alassane Sall dikk na ñu def constat bi beneen constat ba ñu def l'indépendant yéene kaay volonté mu ngay gën a critique waay waay waay nañu libéré waa ji nañu libéré Ousmane Sonko un appel pressant pour la libération immédiate d'Ousmane Sonko la def moom maître Ciré Clédor Ly avocat bu Ousmane Sonko la def deux pour lire l'essentiel ne waa yow maître dama ne boo waxee daf feebar wax ñu lu ko jot son kaw de quoi souffre Ousmane nii la ko yéene bi bind laa la wax nee na Ousmane Sonko mi nekk ci kaw ani lan moo ko dal faw nga wax dafa yéeg ñu ne deete waaye am début insuffisance rénale te démb rek démb laa la wax nii état de santé dafa aggravé ba ñëpp tii dem ba Ousmane Sonko mënatul dara yaram bi lépp bañ maître mooy wax de maître mooy wax de ne ay waay waay waay xanaa gisu kii dama ne boo leen ko gisoon di ko yërëm ñaar fukki fanaa ñaar ci wéeru bii barki boo njaay dañoo tiir ndax kat ñun ay avocat ba ci médecin personnel laa la wax kenn jox ñu a maître dama ne wooteeg wàllu gi gaa naam am na solo nag waaye nag lii yëpp ko Ousmane Sonko di dund ak yaramam bu jagadee dama ne mooma ndax nag moom soobu ci ab xiifal ah kay moo soobu ci ab xiifal ndax nag maître yaa gën a xam ne ku bëgg akara da nga ñime kaani ndax xiifal gu mu sumb nii xam na ni dama nga ca gàccaa nga ca xiifal gii nga xam ne moom la song te koo lii rek nag moo tax yaramam jagadi waaye du leneen la mandat yéene kaay ni waaye solution mën na am ndax xalif général kullu murid yóbbante na ko ay tàndarma mu ngi koy xamal ni jëlal ci dégg ndax ndigal loolee mën naa sowe soldat patriote bi loolooy laaj bi nag le mandat a kay samp na laaj bi de suuf soo xanaa kon tàndarma ya ka xalif ba jox koon jotagu xalif ba tàndarma ya mu ko joxoon suuf soo ba léegi Ousmane Sonko ñamagu ca de moo ngi ci vingt-sixième jour bu nga xam ne grève de la faim la ndax waa ji dana jël ca tàndarma joojee ngir mën a dok maanaam dat ja le point actu ne que ah kay son ko bindee tàndarma de waaye président ndax bu dee président Macky Sall rek nopp bu bon bi la ko may Macky Sall reste sourd aux appels gaañaa ngay yuuxoo ak fu ne maître Ciré Clédor Ly àbb na rajo yi woote nag wàllu boor bu ne waaye waa ji de déggu ko de waa ji déggu ko joxu ko nopp bu baax bi te maire bu jigéen soor it ñaani bañ naa la woote ala accu gàt sa gàt sa woote ba ci grève de la faim bi gàt sa gàt sa googee la ñu laa la wax sunu intellectuel yi l'enquête yéen kaay naw le daa foor naw le daa foor waaye nag sunu intellectuel yi xamuñu loolu ña ngay yekkante lu mel ni xamee la ka waral du lenn lu bi ku nekk jël opposition diggante nag bindkat bii di Felwine Sarr Boubacar Boris Diop ak yeneen intellectuels yi ñoom nawle yi ci boppam ña ngay defante de ña defante ku nekk nag yaa ngi yàq sa morom lu mel ni xeme ndax lan tension politique bi fi ñu toll nii débat contradictoire la ñu am ci borom xam-xam yi l'enquête yéen kaay ni déet dama ne déet waay nawle daa foor nag te ay nawle ngeen suuf soi kon Ousmane Sonko seen nawle la aha koy seetaan bi nga ne def na ko ci fichier ba waaye finalement nag préfet bu Dakar ci boppam moo ko jox directeur bu prison bu Sébikotane kon lettre banque fay xaar de lettre banque fay xaar Ousmane Sonko bu jógee rek pavillon spécial ñu jébbal ko bataaxal ba bataaxal bi nga xam ne moo koy notifié di kaw a nekkoon nag bokkatoo retiré nañ la ci fichier électoral ba ndax ba fii jotagu ko nag moo ngi sa pavillon spécial critique yéene ne ku wax ci liy wax ca la ca des dama ne suñu société civile bi lu muy nuru na la je trouble de la société civile société civile lañu am ay politiciens encagoulés waaw ay opposants yu nga xam ne ni daanaka yàkkamti nañu nguur gi taxaw rek ñu yekk ko li mel ni xamee ay manipulateurs ay calculateurs waaw cool politique rek la ñuy topp daraay askan wi ñoru leen du samay kàddu de critique yéen kaay mooy wax de nee na suñu société civile bii am na si ñoo xam ne daraay askan wi ñoru leen politique bi la ñuy profité di dóor bàcc muy leer société civile fii ci réewum Sénégal deram yàqu na yaxeet critique mooy wax de samay kàddu nee na dañuy màtt fii nga foog ne fii la ñu dem di ku si nekkaat say calcul calcul yéenekaay nee na nag moo tax ba fii ñu toll nii benn bokk yaakaar amagul candidat di déedéet wala waxaguñu ko bokk en tout cas pour de boo fa doxantoo l'exclusif yéenekaay nee muy notable ya di imam yi nee ñu kenn la bëgg ñu teg ko de kenn rek la bëgg laa la wax nii président Macky teg ko muy seen candidat mu di Abdoulaye Daouda Diallo ADD kii rek la bëgg nag alerte yéenekaay nekk déetuwaay Abdoulaye Daouda Diallo ngeen tànn waaye doon ministre waaye tey jii am na fit gu doy ni taxaw ne kon candidat laay doon bu benn bokk yaakaar le mandat yéene kaay lii rek moo tax nag task force républicaine bi di sàkku ci ñoom candidat yi di leen xamal ni waay waay bëgg nañu élégance si yéen de waay waay àndale nax si li ngeen di def lu waayoote ci li ngeen di li ngeen doon nii kon nag lu waayoote bu leen ko fàtte le témoin yéene kaay bu leen ko fàtte la présidentiel la wax heures lay doon Arona Coumba Ndoffène Diouf mooy wax de ci le témoin nee na waay waay sénégalais yi nag war nañu xam ràññee te gis ne président Macky Sall mii la muy doxal nii yëpp moo di dafa bëgg des si nguur gi wax na du def troisième mandat de waaye li muy doxal nii yëpp ay pexe yu nga xam ne da koy teg ngir mën a des si nguur gi ba léegi man maay wax Arona Coumba Ndoffène Diouf nee na dama ne notre politique d'industrialisation fera du Sénégal une grande puissance en Afrique maa ko wax Arona Coumba Ndoffène nee na boo leen ma falee ay boo ma ñamee man toutes les la disposition des Sénégalais ku nag wax fa dëgg neex yàlla lii nga xam ne moo daal Ousmane Sonko acharnement rek la nag nañ wax wax ji acharnement la Arona Kumbando Fène Diouf mooy livrer sa version nii ci le témoin yootul le point actu moom dikk na feneen de nee na waa Fatick festivage yi sont dara jaal nañu jaajëfal nañu Bamba Sarr de l'artisanat yaay leader sans frontières koo xam ne nii Fatick fu la neex daagu ndax li nga fi def nee na ka doomu Fatick nga de waaw Fatick pur sang sa wàll Bamba Sarr directeur de l'artisanat ndaw yi Fatick nee nañ ko yaay sunu yaakaaru ëllëg de bee sa bàkk rek la ñu la nawee le point yéene kay ne Bamba Sarr mi boo leen bëggee dégg dëgg de mooy leader sans frontière laa la wax nii yootu réew mi quotidien ñu xool fi réew mi toll laa la wax jamono ji fii réew mi toll moo di ñàkkum doom gi maanaam takk sa jabar ñëpp lañuy xippi seen i gët xool kaña la soxna si laa la wax di am doom ñaari at ñetti at ñeenti at ñu ne waa ji utile keneen te xamuñu lan moo tax ñoo am doom lépp ñu jël ko nag jóor ko soxna si si mu ngay def témoignage si yéene kaay bi nee na sama jëkkër ci boppam dafa bañ a àndax man ngir ñu dem consulter wu ji ndax dem nañu juróom-ñetti at yu nga xam ne nii amuñu doom ñu joxoñ ma baaraam dem ba xajatuma fi laa waaye ba ñu mujjee dem li ñu gis moo di sama jëkkër varicocèle bilatéral moo ko dal ndoxu góoram si boppam moo am problème ndekete yoo du ci man Mortine sociologue la nee na sëy yu Sénégal moo metti te lépp nag jigéen ji la ñu koy teg bu xaar bi yàggee ay at amu leen doom ñu ne ko da ngaa jaa siir kii bëggu la takkal keneen te moonte de boo seetee ba sa biir ku góor ki mën na ca am wàll kon mu ngoog di leen seen i kaay jëf